parce que man maay dernier victime mu làmb ji ci combat wu mhm. euh, euh, Alioune Seyde ak ñaq jariñu mais boobu du woon grand combat bi grand mhm. combat bi yàlla suturaal na ma mooy Bour Sine ak Eumeu Sène Junior mhm. feet boobu ci gis nga di ma ma feesal stade bi dell waaw donc loolu moom laa continué ñu des ci combat ñàkk jariñu bi ak euh, Alioune Sèye Junior Alioune ni muy demee ba nga ko gisee ban jàngat nga def ci combat bi en tant que tel non xam nga xam nga man làmb làmb mënatuma see jaaxle ma cee tiit dama koo xam euh, mu neex bëy ak naqari bëy naga ko ëpp soow <laughs> làmb lu ma ci bëgg a def def ko damay wax mbër yi may tëgg ni leen du yéen man la maa xew man maa mën a jël mbër mu kenn dul seetaan ma defar ko ba àddina bépp di ko nekk loolu xam-xam la ak mayu yàlla ma di ci sant yàlla suñu borom jur bi sant su may waaju hmm. sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul sama wasila d'accord Eumeu Sène euh, Alioune Sèye 2 ñàkk bi bokk yoon suma programme lu li leen ci indi mooy sama benn doom bu ñuy wax Souleymane Diène mhm. Souleymane Diène mooy garde corps le ministre Makhtar Cissé suma xarit suma doom yi ndey maa ngi koy ñaanal yàlla moom Makhtar si yàlla guddal faram te may ko wér mhm. Makhtar suma xarit la mhm. garde corps am bi ñuy sox Souleymane Diène gendarme la mooy suma doom Souleymane daf ne man maay bàyyam Dakar suy ngéntee fii laay départ dem Fadiouth moom la Alioune Seye di xaritam mu ne ma Alioune Seye def na ñetti at bëri dama bëgg a dimbali ma boole ko ci combat bi lii moo ci dugal Alioune Seye 2 seyde buñ dajewoon maa moom ci mbedd mi xamuma ko ñàkk jariñu buñ dajewoon du ma ko xam ma ne ko amul problème comme suma doom la ma dugal ko ci fay leen xaalis jox leen ay blouson vraiment ñaari mbër yooyu aussi maa ngi leen di félicité di leen ñaanal ñaari mbër yooyu li ñu indi arène nationale grand combat bi indiwul kaar xam nga Alioune Seye de ko 1 million jaay na ci biir lu mat 2 millions. ñàkk jari bi fayu ko 1 million jaay na ci biir lu mat 1 million 500 mille. mais nag bi yàlla dogalee làmb ji toj. te mu jaar ci loxol Alioune Seye 2. parce que làmb ji amateur toju ko. supporter toju ko. Alioune Seye moom la benn waaye jóge fële. ca ñàkk jariñu tuur na ko dara. walla këf na dara. moom ci boppam au kon mu bàyyi ñi mu àndal xeexal ko mu xeexal boppam ba ñu toj boppam mu gaañu ci. ko yow da jàpp ne Alioune Seye 2 moo yàq làmb ci. ku ko yàq. pourtant waa CNG sanction yu ñu teg euh, ñàkk jariñu te teguñ ko ko moom. xam nga lu tax ñu teg ko ko. parce que ka ko sooke. dafa jóge ca ñàkk jariñu loolaa tax ñu teg ko daan yooyu. waaye Alioune Seye 2 su amal encadrement bu baax. mbër mu gemb dongali ci làmb. ba egg fi mu yegg si ak doole ji mu indi ak ambiance bi mu indi doo xeex mbër du xeex dañ koy xeexal seet du tontu xaxaar seet buñ koy xaxaar ñamu àndal ñoo koy tontu tontul mais du tontu mbërëm làmb mu gemmu dongali ñun dañuy ànd ak Manga 2 am na loo xam ni Ibou dana ko sotti adversaire par force loolu yéen doom fekkewu leen ko mais bu ngeen ko laajee ñun bi ñuy ànd ak Manga adversaire bi ak foo dëkk bu fekkee joomaay jox nañ loo xam ne war nañ ko def ci reer bi ngay reeree danañ def tout pexe ba ci reer bi ñu lay toggal danañ ci def saafara soosu nga reere ko yow adversaire bi. nu ngeen daan def. ah non non àggoon nañ ci di rey xar togg boolu naar naar solu sol caaya naar di jaay boolu naar dem ba sa kër adversaire ba di fa jaay boolu naar. làmb ay stratégie la Alioune Seye de keroog ni mu jekkee warut xeex mais moom moo jóg xeex waa ji waa ji dóor ko mu dóor waa ji ba boppam toj de ji sànni foofu ay moor doom mënoon na fa ñoom ñoo waaye yàlla suturaal ma parce que séentu woon naa xam nga ne fi séentu woon naa làmb ji yàqu mhm. parce que làmb ji séentu naa ne du am mhm. ndax pexe duggoon na ci mhm. waaye reen lu mu janden reen nga ci suuf dama dama raba dama dama dabaatal yan pexe yoo si duggoon ah non baatin duggoon na ci yow tamit làmb jooju wër kanam dama yëngalan dama yë parce que dama delloo siwaat dama lu feraaroon dama delloo siwaat presque 4017 indi presque 500 blouson mbër yëpp sol blouson lamb ji harmonie. loxoy nit moo ko naroon a yàq wala. non xam nga saytaane nit la dama la ne ni muy amee parce que dama réduire dégâts bi mais dégâts bi mënta ñàkk dama ko réduire. soo ko laajee Abdoulaye Ndiaye suma doom. wala nga laaj ko Bada Jonn wax naa leen ne lii ma leen di jox ngeen di ko defi ci stade bi ak lii may defali sama bopp pour réduire dégâts bi lay doon mais dégâts mënta ñàkk ko xaar gisoo bi amee wàccu ma. sàttiroon nga ko. mais mais xam naa nag làmb ji dana àgg. yàlla defal ñu sutura ba làmb ji àgg ci jàmm bi làmb ji àggee ci jàmm nag. Euh, la ma doon xaar ñaari mbër yi nga xam ne ñoo sooke toj sama làmb te ma fay leen sama xaalis. ñii ñu def année balance kenn xàmmeetu leen. ma dellu siwaat leen ci tableau ba ñëpp bëgg leen. li ma doon xaar bu amee buñ toogee lundi mardi mercredi ñu woo ma téléphone seet si ma ñëw ne ma baal ma mm-hmm. defuñu defuñu ko. moo tax bi ma yàlla dimbalee ba CNC delloo ma sama mocc reliquat ma sant yàlla. dinañ ci revenir reliquat yooyu ñu delloo la. waaw euh, mbër yi dañ war a ko woon jot ñoom ñoo ko moom surtout Alioune Seye dama ko war moom dama ko waroon porter plainte ñu jàpp ko. parce que dafa toj sama làmb moor doom mënoon na fi am te dama assuré woon làmb ji moom moo xeex du ñu wax ne amateur a xeex du ñu wax ne supporter a xeex. duñu wax ne mbër a xeex moom moo xeex bañ toj boppam moo dàq waa ji dóor ko waa ji tourné dóor ko toj boppam. nee na xaalis boobu dul ko mos a baal. ah non non mais bu ma ko baalul na dox nu dem ba xam mba xam fu wane di mujj ci bët bu fekkee xaalisam laa lekk moom bu fekkee xaalisam laa lekk mu ne du ko baal may sama làmb ji mu toj ba dee mënan ci am mu bañ maa bëreel te lekk sama xaalis sama avance ba mu lekk baalu ma ko ko man.